man la Aliou Ba secrétaire général écurie Bathie Seras en même temps nekk entraîneur bi principal nekk aussi tamit euh, secrétaire général adjoint bu ARELS association des responsables d'école de lutte du Sénégal nekk aussi secrétaire général bu ANELS association nationale des entraîneurs de lutte du Sénégal. kon tey mënuñu fii tey ñu dégg ne ak Covid bi dañu am xaw ay subvention mais ko war a joxe en même temps bëgg waxtaaneel ci affaire làmb ji ci te tamit tey jii bu ñu demee ba ñu war a woote ba ministère joxe feu vert war ñu mën a tëb kon tey ñoo nañ fii dugg nañ ci salle bi ñoo nañ mais nee na dañu woo promoteur yi bu amul mbër kan lay fan la war a jaar ci écurie yi la war jaar ak école de lutte yi ñoom ñoo ñu teg ñoo ñu indil fii ay ay ay formalité yoo xam ne utloo ñu ay kayit utloo ñu ay récépissé ñu teg ne dañu bëgg a professionnaliser làmb ji mais ñoom li ñuy li nga xam ne moom moom moom la ñuy doxalee affaire informelle kese moom la ñuy def ndax chaque fois boobu dañu ko wax mais bu fekkente ne ñii la ñu bëgg a CNG bi moom moom lañ teg ñu bëgg a doxalee dem fenn parce que lii si boppam moom moo dul VIP am dëgg la mais mbëri fu ñu bokk mbëri mag yi fa lañ bokk ci écurie ak ay école de dañu war a am war ay responsable bu mu bëggee ne tëb seen responsable ñoo fii dem ni woo di bëgg ñoom li ñu bëgg a a li ñu def nii day jaxase parce que boo ñëwee ci benn kuréel nga ñëw ci benn structure nga fekk boo ñëwee nga nga ñëw xëcc ñële yóbbu fee nga jël ñeneen bàyyi seen principal seen seen principal responsable bi léegi loolu nan lay mën a sotte dañu bëgg nañ jox respon nañ jox gëdd ñi nga xam ne moom moo di responsable écurie muy président ak secrétaire général yi ak ñi fa nekk dañ leen jox gëdd te xam ne mbër yi ndaw yi dañ ci bokk ñun chaque année dañuy dañuy dañuy affilié wu ñen ñi di réaffilié wu mbër yi tamit dañuy dem dañuy dañuy dem defaraat seen licence def def renouvellement dem uti ay certificat d'aptitude uti uti lépp di entraîner salle def def lu dugal ko ci nga dugal ko foofu waaw war a kii mais war a a bàyyi écrit dañu war a woo ñu waxtaan du question ay problème xaalis wala dara mais dañu bëgg nañu jox gëdd bu ñu am nañ ñu ko jox loolu lañu bëgg Aliou léegi li ma bëggoon xam mooy bi ngeen duggee ci biir yéen ñëpp lan lañ leen wax dañoo dugg si biir ñoom ñu wax ñu ne dañoo woo promoteurs yi ñoom lañu woo léegi fekk ñun daal comme ñoom lañ woo nañ ñeneen ñi daal mën nañ leen may mais comment se fait-il que man loolu laa mënut a nangu ba léegi te nag par respect am yar ak teggin moo tax ñu nangu loolu mais mënoon nañoo toog insister toog bu yeboo réunion bi jaaree fa yàqu mais par respect bañ ñu ne rek ñii peut-être dañuy yarul wala nangam moom moo tax mais loolu dafa nekk loo xam du yoon ñoom waruñu woon sax accepter loolu mu ñu nekk ay ay responsable tam ñu ñu bëgg ñu laisser arrêt comme ça. nekkuñ seen droit puisque bi ñu convoqué promoteurs yi lañ wax. waaw mais ñu ñu convoqué promoteurs yi ci affaire lamb nuñ ci mën a woolee ñuy wax promoteur di bàyyi ñi nga xam ne ñoom ñooy ñoom ñooy responsable écurie ak ak école de lutte loolu dafa mën a nekk. mënul nekk. waaw mais est-ce xaar seen euh, ah. am na si ñoo xam ne sax ma ne la am ñun ay promoteur la AREELS. jënd nañ daaw carte ma jënd nañ kart euh, jënd nañ licence su licence promoteur jënd nañ ko. sans frappe te fii ay ñi ay licence frappe ak ak sans ñoom ñoom ñoo fi nekk. et puis suñu AREELS daal nee nañ mën bàyyi benn xaw ma représentant ñëw ñëw toog fi waxtaan bi foofu na war a nekk waxtaan bi yaatu. parce que ñoom keroog bañ toogee seen wax buñ daje ñoom wax nañ ne jox nañ leen subvention mais pour CNG la ak pour promoteurs yi fan la tege ñu jox ay promoteur ak waa CNG subvention bàyyi ñu bàyyi écurie école de lutte loolu. écurie yi boo bëggee ñu subventionné leen ci yan anam leen la leen war a subventionné. waaye bu ñu mënee subven bu ñu mënee subventionné promoteur ak CNG bu ñu leen mën a subventionné benn ñu defal ko écurie ak école de lutte fukk ñoom ñoom ci ci yan condition moom la ñu leen subventionné ñun dégg nga lu ma la wax dañuy affilier chaque année. dañuy dañuy dañuy dañuy def ay renouvellement licence jël suñu xaalis di di ko di ko bu ñu bëree eh, impacté wu ñu ñoom tamit mbëri su ma déggee mooy que ne yow écrit yi dañ leen impacté covid bi daf leen impacté wala waaw mais daaw ñu am ay mbëri yoo xam dañoo dem ba suba ñu arrêté ko ñu jëndoon seen def seen regroupement lépp lañ defoon ba pare ñu mën yàq loolu lépp kon donc kay loolu bu fee impacté day amee kay mbëri yi gën a impacté surtout nag mbëri ndaw yi mbëri ndaw yi dañ euh, ministre bi la république ak ak président Birasène ñoom ñëpp lañ koy parce que ñoom ñoom ils sont tous concernés.